dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne dal leen ak jàmm dafa am benn bataaxal boo xam ne mu ngi tukkee ci administration pénitentiaire daal di koy fësal ñeel Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye ak ki nga xam ni moo di Mouhamadou Samba Djim ñu gën koo xam ci Hannibal Djim. kookee ñu mujjee tudd nag di Hannibal Djim ñoom ne nañ ña ngi indi ca maison d'arrêt et de correction ba nekk ca Rebeuss le 14 mu tàmbali grève de la faim le 28 ca lañ ko transféré le 10 ca service bu réanimation bu hôpital principal bu Dakar gannaaw ba nga xamee ni daa def benn malaise ñu constaté ko infirmerie ba nga xam ni moo nekk ca biir établissement pénitentiaire ba keneen ka ca topp moo di Cheikh Bara Ndiaye moom moomee le 9 juin 2023 lañ ko i arrestation ca pavillon spécial ba mu ñàkk doole lool ndax nangu wutoon daal lekk ca lañ ko transféré ca urgence ba nga xam ni moo nekk ca hôpital principal bu Dakar gannaaw ba mu defee aw malaise le 4 août topp moo di Ousmane Sonko moo moomee ñu placé ko sous mandat de dépôt le 31 juillet 2023 ca maison de correction bu Sébikotane moom itam ñàkk nangu lekk waral ñu daal di yóbbu ca fa nga xam ni moo di pavillon Teranga ca hôpital principal bu Dakar le 6 août malaise boo xam ni ci guddip 16 jàpp 17 août 2023 ci boori une heure 42 minutes ci lañ ko daal di transféré ci service de réanimation bi nekk ci hôpital principal bu Dakar ñoom nag ña ngay wéy di dëggal naan lépp loo xam ne ay matukaay la ñu war koo jël duñ ci xaar leen ngir prise en charge bi mën a dal di jaar yoon waaye nag dinañ ci ànd ak service yi nga xam ni dañuy dox ci lu ñeel wàllum wérgu yaram nekk ci hôpital principal bu Dakar ngir malade yooyee ñu daal di lim mën na saytu seen ab yaram ci anam bu mucc anam mu gënee loolu bataaxal bi nga xam ni tukkee na ci waa administration nekk communiqué de presse ñu daal di koy fësal ngir addu ci mbiri Ousmane Sonko Cheikh Bara Ndiaye ak Hannibal Djim AGT News communiqué de l' administration pénitentiaire l' administration pénitentiaire informe l'opinion publique sur la situation de personnes détenues hospitalisées À la date du 18 août 2023, ils sont au nombre de trois au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Il s'agit de Mohamedou Samba Jim, dit Hannibal Jim. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Rebeuss depuis le 14 a été transféré au niveau de l'infirmerie de l'établissement pénitentiaire. Cheikh Bara Ndiaye, il retrouvés depuis le 9 juin 2023 à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial. Affaibli par un refus de s'alimenter, il sera transféré aux urgences de l'hôpital principal de Dakar à la suite d'un malaise le 4 août Ousmane Sonko. Il est placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet 2023 à la maison de correction de Sébikotane, présentant une faiblesse générale liée à son refus de s'alimenter. Il est évacué le 6 août au pavillon Teranga de l'hôpital principal de Dakar à la suite d'un malaise survenu la nuit du 16 au 17 août 2023 aux environs de 1h42 minutes. Il sera transféré au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar. Cependant, l'administration pénitentiaire tient à préciser que toutes les dispositions nécessaires sont prises avec le concours des services de santé de l'hôpital principal de Dakar pour offrir aux malades une meilleure prise en charge médicale. Voici donc le communiqué émanant de l'administration pénitentiaire concernant Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim et Ousmane Sonko. AGT News.